ñu ngi fii kër Gaston Mbengue euh, mu woote fii Bombardier ak Boy Niang 2 keroog Sa Thiès ñëw na fi ak Balla Gaye 2 euh, Gaston dégg naa démb tamit Gris Bordeaux ñëw na fi. ngi ñëw léegi. Hmm. mais communication bi. bon parce que hmm. hmm. leen jur. ñu nekk samay jarbaat bu mhm. bëgg a wane rek nii xaar ma yàlla amuñ mhm. ñun ñëpp samay nit loolu ñoom laa yemale surtout mhm. famille mais ñu leen di ñaanal ñun ñëpp vraiment liñu liggéey bi ñuy liggéey muy affaire lamb yàlla ubbi seen wërsëg ñun ñëpp sàmm leen victoire moo am ci làmb match mm-hmm. nul ak defet mm-hmm. mais du tee nag jàmm ji di continuer te jàmm jooju moo tax may woote sama kër mm-hmm. ak yëpp ba tey mbëri di fi daje et tout ça lan mooy secret Gaston Mbengue secret Gaston Mbengue di du dara secret bi du dara dara dara lu muy jaamu yàlla boo xam ne yàlla koy jàppale ku yàlla jàppale ku yàlla jàppale rek a fi nekk kenn mënul dara secret mais 30 yomb na wala yombul. ouf tant que. 92 2022. oui mais bu dara ciy dund. bu dara ci yi bëggal nañ ci Sénégal. yàgg nañ ci bëggal Sénégal. yoo xam ni léeg-léeg euh, du ñu nangu. te loolu fépp la. Euh, ñoo xam ne dañuy contre yorante bi du ñëpp ko bëgg. Hmm. te mooy gën di bindee. dëgg la donc euh, toog nag benn simple Gaston Mbengue. Hmm. mën naa am ay noonu. Hmm. mais noonu yi damay ñaan yàlla rek ñoom ñëpp yàlla di leen. dañu bëgg Gaston Gaston bëgg leen. parce que Sénégal loolu euh, si si 30 ans yi man dama si rappeler toujours Tyson Balla Gaye de 30 31 juillet 2011 boobu bokk na si journée yi li la gën a neex.

ñaar yu jëkk donc mun nañu wax Théola Donké. non man may Gaston Mbengue. Hmm. pourquoi affecté wala noonu Donké. Hmm. bañu ma ko. parce que nit ñaa ngi ma koy wax. mënu ma hmm. ci dara. nit ñi danoo baax rek ak yéen a ma yéen a ma succès ak rek. dama leen koy nangul. man may Gaston Mbengue. yaa Gaston Mbengue. mais yow combat Sa Sa Thiès Reug Reug moo dàq.

yàlla moom soo tegee lépp ci ci ci moom rek dara lu jafe léegi yàlla na nu jig rek yàlla ñun daal li ñuy taxawal mm-hmm. yàlla dimbali nu bon koy taxawal mm-hmm. yàlla rek nekk lu gën ci ñun jig mm-hmm. jig réew mi jig làmb da ngay waaj a jox Bombardier avance non que man da waaj a jox ñëpp avance mbër na ko yàlla tudd rek tey Bombardier ñu bari ñu wax digganteem ak Tapha Tine ko war a leer na ko yàlla tudd lu ko yàlla tudd lépp rek lu yàlla tudd xam nga man tay bi ma laajee mhm. ma ne leen loolu mhm. nekkuma ci wala yaakaaru ngeen xëy suma ni su ma def ko mhm. mu ne mën naa mais na ko yàlla tudd léegi yëfu sous-marin ngay def xanaa liggéey liggéey soo ko sëgal damay damay ñaan yàlla dund rek lépp lu mu dogal ci man nag suñu ko mënee réaliser yàlla est-ce que nañu xaar Tapha nga engagé ko parce que ñoo laaj Tapha waaw lépp rek damay dellu ci yàlla rek. li mm-hmm. ci yàlla dogal rek. Mm-hmm. te mu nekk li gën ci réew nekk sama njëg laay yàlla yàlla ñu demaat la 7 août moom ngay tëj sa saison diggante Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux ñu njëkkoon bëre. Mm-hmm. Léopold Senghor nga indiwaat ko arène national combat boobu si wàllu organisation si wàllu sécurité euh, loolu nan nga si ak wàllu promotion nan nga nan nga si taxawee. combat yi baax rek. mouvement def na ko mm-hmm. promotion bu doy mm-hmm. sécurité bu doy mm-hmm. organisation bu doy ñaan yàlla yàlla ay télé ci jàmm day nekk pay view lépp pay view lépp pay view pay view bi eh, da si gis sa bopp wala wala nu mu waaw eh, dana dana jàppale dana jàppale promoteur dana jàppale promoteur parce que promoteur bi entrée la mu jàppale wu

mën na euh, ñu ngi koy waxee di euh, supplé perfeelu bi. Mm-hmm. tey pourquoi pas. pourquoi pas président Macky Sall may na fi lu ne defal na Sénégalais yi lu ne. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm, d' accord lan ngay terminer. ah di ñaan yàlla rek ñu koor gi ñu nekk rek yàlla na yàlla jàppale jàmm. eggale ko jàmm. loolu mhm. delluwaat ci làmb ak jàmm. Mhm. di ñaanal sama jarbaat sama doomu promoteur yëpp. Mhm. yàlla defal leen boobu jàmm. yàlla defal leen jàmm. Euh, waa làmb ji comprendre leen ñun ñëpp te jàppale leen ba nu mën a nekk ci làmb ji. di ci def lu mel ni ci Gaston defaloon ko. parce que Gaston mën na tëgg combat yi. prochain rendez vous balaa ñuy terminer kañ la sa prochaine journée. prochaine journée le 28 mai à Kaolack. Mhm. am na fa. ñu mhm. magasin bi truc pour taxawal combat yi. Mhm. Euh, le 7 août. le 7 août Balla